Hallelujah. ginnaaw bi ñu jógee Combe delluwaat nañ ci beneen dëkk buñ naan Buuj nekk ci arrondissement Ngothie ci département Kaolack et à un kilomètre de Combe et trois kilomètres de Gandiaye booy dem ci dëkk boobu Jakarta ngay jël wala fas nawet oto mënu fa dem xanaa nga am oto bu mag ndax xàll bi jëm ci dëkk boobu yëpp ndox mi da ko nangu di koy gis image buuj nag boo fay dem di nga romb dëkk biñ naan cekleer sarsara cuppaan buuj nag ci séeréer mooy mucc ci olof ñu ngi koy dàkkante rek benn garab buñ naan xewaar buñ né buuj xel yëpp dem ci El Hadj Yusufa Seen mu nekkoon benn góor bu ràññeeku woon ci biir Dalaa'ilul Xayraat fii ci Saalum daanaka gàmmu yu bari fi daan am bokkoon na ci nit ñi daan teeru El Hadj Mouhamadou Ngom génn na àddina waaye tey Kifne TV fii la fas yéene def émission jaar-jaaram ñëw waxtaan ak njabootam ci diggante El Hadj Mouhamadou Ngom ak kii di góor gi naan Youssoufa Sène incha rabbi بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد خير الرسول وعلى اله وصحبه وسلم تسليما ان سيمبوك انترنيسيا تانكي في تي في ba léegi suñu tournée coom bi tey ne dañoo ñëw seet si góor gu amoon kóllëre ak El Hadj Mouhamadou Moustapha ñu koy wax Seen dëkkoon fii si coom dëkk bu ñu naan buut tey nag nekku fi waaye tey ñëw nañ seet si ay njabootam ñu bàyyi suñu papa Seen mu nuyoo asalaamaaleykum waaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakaatu mhm. auzu billahi min ashaytaani rajim bismillahi rahmaani rahim alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa alihi wa sahbihi wa man wala assalamu alaykum warahmatullah alaykum salam maa ngi lay nuyoo di la bi di la ziar di la ziar bi di la ñaanal di sàkku nga ñaanal ma ñaanal mboolem jullit ah, maa ngi bég lool ci sa teewaay fii jeego yi nga dox ñu ngi ciy bég di sant ndax ki gàttal nag pour ñëw directement ci sa laaj bi mooy ñëw nga ci kër Awlaay Yusufa Seen fii ci bug commune Thiobi arrondissement Ngor région de Kaolack dégg nañ lool di Yusufa Seen nekk na góor bu mag xam ne na ko gudd fan na donc ci gàttal rek mag la woon. Mhm. mais yàlla boole ko alaaji Mouhamadou Moustapha Ngom. Mhm. boole boo xam ne yàlla kese la. Mhm. yonent bi sallallahu alayhi wa moo leen boole. ndax dégg na ko ci tund wi. muy wër. ak ay warwaayam. di ziyaare ak dugg ci biir dëkk bi. naa biir réew mi rek. di dundal baatu laa ilaha illallah mm-hmm. di dundal li nga xam ne mooy shahadatu am laa ilaha illallah wa anna muhammadu rasulullah mm-hmm. ah ci jeego yooyu nag la ko mm-hmm. yàlla def mu xamanteek moom góor gi ñëw coomi aussi. Mhm. yàlla boole ko mhm. suñu góor gi suba seen. Mhm. mu bàyyi ko coomi doxal ay jéego ñëw ba fii. ak ay taalibeem seen xamante daal ci gàttal noonu la demee. ci biir wër bi mu doon wër daal dëkk bi la ko yàlla boole góor gi. moom it keroog bi ñu gisee góor gi. daf ko ne jàpp naa la xarit. Mm-hmm. jàpp naa la bàyyi mm-hmm. ndax yaa ma mat ci zahir mm-hmm. mais jàpp naa la xarit ngir ki ma bëgg moo ma sant ne nag ma bëggal kii ndax moom nee na yonentu Muhammad sallallahu alayhi wa ni ma la bëggee na nga bëgg góor gii di Yuusufa Seen moo tax moom na ko bëgg bu jéggi dara ndax moo ko sant ne góor gi gi it baat tax moom bëggoon na ko bëgg boo xam ne ne yàlla rek ak yonent bee tax nekkoon na mag mais fu góor gi mos a woote. dina def ay moyens ba dem. Mm-hmm. bokk ak mbooloo moomu. Mm-hmm. lii daal moo jur seen xamante. mooy Muhammadu Rasulullah sallallahu moo leen boole woon. Mm-hmm. Eh, yaa ngi fàttaliku góor gi mu daan ñëw si tund bi gàmmu yi nu mu daan demee. ak nan la si Pa Youssoufa Sène doon investir dooleem ak xaalisam ak moyens foofu aussi. ñu ngi sant yàlla bu baax. ndax moom euh, yàlla dimbale na ko. jamono jooju boobu jamono neexut. mais nekkoon liggéeykat. ndax mhm. béykat bu mag la woon. da mhm. doon am dundam bu mag. Mhm. am macha allah lu mu dundalee njabootam. Mhm. mais am lu mu mën a denc. Mhm. ngir sóoraale ëllëg ndaxte lépp day bette. Mhm. taxoon na boobu góor gi di ñëw. moom du denc dara. léppam lay génne. fere ko ci bés bi. teewul góor gi bu ñëwoon nag. dina dugg ak moom ne. ñu saafuwante. loolu nag des na maa leer. mais xam naa ne daal moom ci mën-mënam ak kattanam li ko yàlla mayoon. daawoon na yëkkati alalam bu duun def ko ci. ngir taaral bés bi. dem na ba di yëkkati. yëkkati ay nag di ko rey ci bés boobu mhm. ci profité de mhm. di sant yi mbokki yi nga xam ne taalibe yu yu njëkk ñooñu mhm. ñoom Ablaye Sène bu Xalabaas ñoom Sédar ñooñu daanaka fii doon fanaan ko ma dañ doon ñëw fanaan taxawal baas boobu baas yi xew nii di weñ ak ay tub tub yooyu xew dañuy dugg ci àll bi ay bant yu baax ñëw gas ko di baas takk baas bi te loolu balaa bët seet ñoom dinañ bu baax ci loolu. waaw daal gàmmu yooyu yaa ngi daan fàttaliku góor gi nu mu fi daan duggee ak yan message daan jox.

di ci ñaax nit ñi di mm-hmm. leen di baxee baxee loo xel mm-hmm. ci wàllu xarakaatu mm-hmm. axiru zaman mu janteelu jamono mi nga xam ne li yonent bi diggee woon nga xam ne mbaax day wàññeeku ñi ñi commencé bàyyi seen diine sàggane seen diine seen cofeel ci yonent bi di wàññeeku loolu daal bokkoon ci li muy dénoncé di ko xeex di doxalit mission bi nga xam ne moom la ko yàlla yenoon ci jamono yooyu waaw ñu ngi koy ñaanal yàlla ko yàlla yokku leen amin amin eh, kii ñu bàyyi suñu kii bi amul lu amul lu mu si fàtte dafa ñu nekkee xale li ma ci bëgg a mooy bokkoon na ci mission ah, mu taxaw taxawaay boo xamee ne mhm. xawoon na jafe lool ci milieu séeréer nga xam mhm. ne séeréer ah du ma ne séeréer kese mhm. mais yenn yenn aada yi daanaka dafay mel ni leen mooñaale xërëm ñu bëgg xërëm mhm. di ko tuur mhm. ñuy def ay garab mhm. ñuy def ay kuur ñii di sotti soow ñii di sotti meew ñii di togg sax di sotti ci tuur yi loolu bokkoon na ci mission am daanaka muy duggee def na ci jaloore bu mag wax lii ah, bi ñu ñëwee fii ci coom gis nañ fi jàkka ji mu fi defaraatoo mu amoon histoire Bima, mais bi ma demee si papa Mamadou Ngom mi nekk imam ratib bi jàng dëkk bi dana ma bàyyi na fii loo xam ne dañu jàkk ji rek la yonent yàlla Muhammad alayhi salaatu wasalaam di julli ngoon gu ne léegi nag ma ne la rek yow est-ce que rappelé wu nga histoire jàkka ji wala si coom bi histoire jàkka ji moom mhm. ci suma xam-xam bu gàtt daal mhm. loolu moom maa ngi koy dëggal mhm. ndax saa su ñëwoon fii dina di waxtaan ak góor bi di leen di ñaax ci wàllu jàkka jooju suñu bàyyi daawoon nañu wax ne mm-hmm. alaaj Moodu Bom mm-hmm. jàkka yooyu lu mu fonk la mm-hmm. ndax yonent bee ko ci jox ndigal moo ko taxawali moo ko rëdd waaw ñu saa suñ fa dee daawoon nañ dem dafa barkeel dafa julli waaw jàkka yu mu joxoon formal la it mag ñi joxoon nañ ko formal waaw kooku it ah, jëf lu mu jëf la yàlla ko ko yàlla fay waaw rasulullah amin amin ah kontaan nañ lool kontaan nañ si ñëw gi ak waxtaan bi nga waxtaan si Paa Yusufa Seen ak diggante ma Mm-hmm. El Hadj Mouhamadou Moustapha Ngom mm-hmm. ah yàlla la yàlla fay tànk mm-hmm. kóllëre yi ñu dox tamit na yàlla fay iya, suñu man bi ñu indi tamit boobu ba légui mom lañu and mu ñu xamal dëkk bi mmh. ah ci goor bi tegoon tànkam la ñu fay dem di ko kolëre mmh. donc ñu leen sant di leen gërëm di leen wax nak ba salam mmh. inshallah allahu rabbi leen na tagato tagato bi mom moy tagato bu dul ay rek ah, yalla delu wonale wat amin kolëre bi yal na ko yàlla dundal ci kanam rasulullah sallallahu alayhi wasallam ñu leen di ñaanal bu baax leen ci yoonu jàmm amiin amiin boo firee rido bi lay gën a leer ah. ok ah, mhm. waaw léegi maa ngi jël ah, léegi dama ci ajouté rek di leeralal kii mhm. mooy jaatu góor gi mhm. pour mu am ay repère rek ci kooku alaaj Mamadou mu ngi koy waxal ma ne gàmmoom bu mujj fii. suñ benn jarbaat. di koy ya, mhm. eh, eh, mhm. wax yaayam tudd xadi seen seen sœur yàlla daf ko nattoo woon parental bopp bi da doon watu len rek bopp bi du am karaw mel ni kuy xaw di daanu lu ay fukki oto nangam góor gi ndeysaan moom bu gàmmo tasoon ñëpp lay jox si woon it ci karawaan bi lay ñenn ñi mu euh, langaamu leen foon leen. Mhm. ndeysaan gàmmu gi tas na mu waaj a dem. koy mhm. jël rang bi nag. Mhm. ñëpp dal di rang ndeysaan. mu dugg ci rang yi nag di tàggatoo nii. ba ñëw bay dem da xadi seen rek. Ah, ñu ne ko yow xanaa doo présenté góor bi sa feebaru xale bi. boppam baa ngi nii def mel kese. mu mel ni kuy daanu am mm-hmm. mu dal di ko góor gi ne ko ñaanalal ma sama doom mm-hmm. moom gisoo ni mel góor gi ne ko demal nga ut keesu mm-hmm. suukar bu jeex ak këriñ ndeysaan maa ngi fàtte ñu indil ko ko rek mu jël mu suukar bi ki bindi këriñ bindi bindi bind ba mbindam sotti rek mu ne ko nanga ko lakk ba mu doom nga ko koy diwal xale boobu fi mu toll nii daanaka jot na say jànko mag la. Mhm. moromu kii la daanaka. Mhm. mais fi mu ne karawam macha allah day lang ba ci. ba <laughs> ci mhm. bu mag kiraama bu mag la fa def. waaw ah, maa ngi fàttaliku atamit. Ah, ñu ngi def repère benn mag. bàyyeekoo ci penku bi. Mm-hmm. di ñëw. Mm-hmm. am na benn guy gu mag bu nekkoon ni ñu naan ko um noo xam. càllo yoroo fa la baxee ko. Mm-hmm. am lu mu mu ngi yëkkatiwaale pënd beeg poussière yi. ñëw bu jub gàmmo gi. ci tant bi. boobu alaaj mu ngi taxaw ci di téye yetu yetu kaanam gi. kaanam gi dal di ko joxoñ ne ko kële de invité ko. amu fi place. noonu la ñëpp janoog calaweer bi calaweer bi dal di teggi teggi daw teggi dem yoon mhm. ñu jékki-jékki waat gisaat beneen calaweer bu xaw a toll ni boobu mais mhm. moo ko gën a calme daal mhm. boobu mu ne bëleele mu ne dama ko invité day ñëw fekkee di yéen gàmmu rasulullah sallallahu alayhi wa sallam man de kenn nettaliwu ma. yaa fekke doon ndaw maa ñëw dugg ci tant bi. Mhm. yëngal tant bi am na yenn buum yi goj yi takkee woon bant yi. Mhm. yu commencé dagg sax. Mhm. bi daal di jóg di dal. moom it mu sikkar rek. ñu xawul ko. Mm-hmm. càll weer wi yëngu ba ci kanam mm-hmm. càll weer wi ci biir kër gii la dugg si mm-hmm. ba fi ñu doon toggee dafa ñëw ba ci togg togguwaay yi jigéen ñi daal di a tënk rek taxoon nañu ndaw woon ñu bàyyi woon xel la dëgg la xale bu gisee lu mu xamul dëgg la da koy frappé waaw da koy marqué loolu daal lañ bëggoon ajouté gën leeraloon suñu rakk ji dëgg la woon ko ne moom fàtte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 Damo ilo na ako. Lalo na ang kandaan mo. Lalo na may pak. Hindi talo mo na. Kami dito. Kami dito. Kami dito. Kami dito. Kami dito. kon yàlla ma toog ñun lañ doon taale. waaw léegi waaw. fii lañ caw caw leer. fii la jigéen ñi doon taale.

Mm-hmm. def fii bi waaw mm-hmm. ah, finalement nag ñu xaw di dox na le mm-hmm. garab gi aussi xay bu mag la woon uh-huh. mooy tëdd nii xay boobu xay bu fu yàgg la waaw uh-huh. ah, daaw jéeg la daan mais moom it amoon na këru garab gu yaatu waaw ah, taxoon ñu ji jege nii gàmmu yu mujj yëpp fii la nekk nii ci wetu bâtiment bu jaune bi. Mhm. jamono yooyu nag góor gi. Mhm. jàkka ji. Mhm. ndeysaan foofu ah, demoon comme mébét bi amoon coombi. waaw bii nag góor gi moo ko rëdd. mais moom aussi ñëw na accompagné ko ci jàppale. waaw Paa Youssoufa Sène moo rëddoon mu jàkka ji. waaw moo ko rëddoon. finalement daal di tabax jumaa ji bu mhm. mhm. daal góor gi marqué woon na fi daal mu ngi noonu ndeysaan ñu naan suba ba uh-huh. mm-hmm. moo dem Gandiaye. waaw daanaka fii ba. Mm-hmm. ca la oto yi doon rang rek. rang mu dugg ci digg bi. dëgg la tàggu ñëpp. Uh-huh. waaw bu doon daanaka dañ koy teeru. da ngeen koy teeru ci buntu dëkk buntu dëkk bi. ba fii. incha allah bu ñëwee day wàcc ak tànkam dox. Mm-hmm. waaw ñëpp mu jox leen la marqué ci moom mi ngi noonu. histoire bi ñu sëtam bi di Babacar seen di nettali ci diggante El Hadj Mouhamadou Moustapha ak Càllaweer yi mi ngi amoon en 1988 ginnaaw bi waxtaanee waa kër gi ba pare bi ñuy ñibbisi awaat nañ beneen dëkk bu naan jëm ñaajo fekki fawaat beneen sëtam bu naan maam Njaay moom tamit am na kàddu gu muy sànni ci diggante El Hadj Mouhamadou Moustapha ak kii di góor gi Youssoufa Sène ba léegi ñu ngi nii fii si Buuj di fàttaliku jamono el bi El Hadj Mouhamadou Moustapha daan fi ñëw di fi def gàmmu ñu ngi taseeg suñu benn doyen bu rappelé bokk ci famille Youssoufa Sène moom tamit am na lu muy fàttaliku ci El la tudd euh, la am ci El Hadj Mouhamadou Moustapha Ngom def. Ah, ay ma ñu fi mm-hmm. ah, boobu nga wax de mooy Ibrahima Ngom. Mm-hmm. amoon na ay jamono. Mhm. bëri woon na fi tànk. Mhm. El waaw bëri woon na fi man maa tudd Mang Ndiaye. Mhm. doonoon jarbaat ci Youssoufa Sène bi mu fi doon fekk si fii. bi ñu formé woon daayira parce que am ñoom finalement amoon nañ daayira fii. daayira bi nag yaatu woon na sax demoon na ba yaatu. xanaa yàllaa def rek. ay mbiram bee tax. loolu continuer ti woon. parce que ñi desati woon. daanaka di doon jàppale paa bi ñu bëri dem nañ. fii nii nag ba xalambaas fële ca gannaaw mm-hmm. eh, dañ fi do ñew fini di daj di fi daje di fi def ziaré bu mag a mag a mag mm-hmm. at mu jot mm-hmm. waaw yow nga ne ci yaata amo la fi mo fi nekk buuj bi nak nga xam fi la do ñew c'est composé de sept amo juróom-ñaari gox la euh fi ni ñu nak ni mo tuddu tudd Diamniadio c'est le lieu de chef de village chef de village waaw ca kanam fële à cinq cent mètres yaa bu jomaat Eh! Eh! soo prolongé di dem ci vers la mer puisque géej gi soriwuñu ci la ñuy jëriñoo. Mm-hmm. Eh, da nga jot Kër Gana. après Kër Gana y' a Bilo ci Ngeltamba. après Ngeltamba y' a la mer. Mm-hmm. nga euh, foofu mooy Ndanganjeen. Mm-hmm. après Ndanganjeen nga ñëw boor côté euh, gauche nga fekk foofu Ndoufane. loolu moo composé ak cekle derrière ci sa gannaaw nii waaw cekle mhm. kooku mooy les sept hameaux yi composé ginnaaw bi ñu waxee sept hameaux yi composé fii yaa ngi fàttali ko El Hadj Mouhamadou mhm, bu baax a baax mhm. bu baax waaw fii da doon ñëw ñëw fekk mbooloo mu takku sax waaw waaw kañ fii la ma doon fekk loo si fàttaliku ah li ma ci fàttaliku kañ mooy eh, eh, événement yu bëri puisque ñëwoon na fii di wax affaire yi l'islam bi mhm. diine bi surtout mhm. dem na fi bay daal génn woon ñu bëri ci affaire yi mhm. pangool yeeg yooyu surtout loolu waaw mbiri seen li ñu séeréer yu gëmoon daal ci affaire pangool loolu doon la doon daq daq moom daal dafa doon dimbale par puisque pa bi itam mu doon fekk si bi moom yëf yi lislaam daf ko mosoon a ñor. Mhm. waaw d'ailleurs eh, mag la mais dafa jànge woon daara. Mhm. demoon na ba lislaam boobu moo ko ja moo jaraloon mhm. moom mu uti sax ay ustaas. ba eh, Sokone. pour eh, samp fi benn luñ doon waxee oh, oh, oh. école coranique moom moo ko doon fay ci boppam. ñaami dëkk bi sax pour ñu doxe seen doom yi te bu kenn fay moom moo koy fay loolu daal moom la woon moom mu dikkoon fekk si nag si paa bi loolu gën ciy jàppale paa bi di défensé daal gëm-gëm yi affaire Pampal ak yéen waaw loolu na neex daal bu góor gi daan dugg eh, trop trop trop ñoom demoon nañ ba gox yi ñëwoon sax mhm. si sa mbir mi jëkkës moom dañ doon ñëwoon waaw daal yaa ngi fàttaliku loolu. moom fàttaliku naa ko ci moom. léegi euh, soxla ngeen affaire loolu amaat. waaw est-ce que yéen bëggaan ngeen gàmmu nga amal uh-huh. il faut wax ne recyclage mooy <laughs> il faut nga jéem ut ñi ko uh-huh. bien vrai gos yi léegi. fonk nañ diine nii ci julleeg affaire yi. Mm. mais pour nga organiser leen. comme mag ñi day jafe. Mm-hmm. kooku kañ il faut kañ essayer ay nit. Mm-hmm. jog ci loolu. Mm-hmm. soog a commencé nag di wax affaire yi ci loolu. incha allah il faut nga jéem a imprégner les gens. di kii ba xam ne ñoom. gëmaat nañu kii yooyu. nga soog a kii. incha allah rabbi nañ si def ah. góor daal moom la am ngeen ay souvenirs yu bëri ci moom. yu bëri bëri bëri. je me rappelle très bien sax benn am na benn gox bu nekk fële. foofu benn place la boo xam ne ay guy ñoo fa ne foofu ay daanaka tuur na ak mu jot. ba dëkk bi dañ fa doon dem tuur. la. fii nii c'est le quartier. c'est un euh, hameau hameau de amoo bu jama ah. waaw foofu ay genre pangool ñoo fa nekk dañ fay doon tula yooyu ah. mooy bàyyi eh, wax ne sax am na benn garab boo fa newoon akaleng ah. benn guy boo xam ne day wax c'est interdit quoi pour nga jëfandikoo ko uh-huh. mais pas bi pour wan nañ kii moom mu jël sa jëfandikoo uh-huh. nañ kii du daal uh-huh. waaw lii dina a saytaane la rek. Mhm. waaw yéen a ngi fàttali fàttali histoire bi mu defoon coom bi. non nag. Ah. Ah. fekk na man ma euh, man je n'étais pas de l'ONCAV. Ah, la. ah Matar moom na moom bëri na li ñu si jot a may na moom. <laughs> ginnaaw bi ngeen dégloo waxtaan ba pare ñu ngi leen ngeen seetaan benn gàmm bu fa El Hadj Mouhamadou Ngom defoon ci teewaayu Youssoupha Sène ci buuj dans les années 80 leen ñaanal gudd fan ak wér gi yaram yéen ak seen sëriñ sëriñ bi ñun lay sant bu baax a baax a baax ndax yow yaa ngi jóg di ñëw ci ñun te musulaa ñëw ñaan ñu dërëm musulaa ñëw ñaan ñu dara te boo ñëw eh, di ñu jéem dimbali ci ci suñu gan ñi nga xam ne ñi fi ñëw ñëpp gannaaw yàlla ay yontu ba ñun ñoo tax ñu ñëw ak sa sago bu la neexoon nga ñëw te doo ñu jox dara waaye dangaa jóg ñëw dañu dimbale ci ñëw bi te wax dëgg bu ñu amee bu ñu amul yàlla xam na ne sa mbir yëpp ñoo ko wara a gàttu gannaaw yàlla yontu ba nga ñëw fii di ñu waxal yàlla nañu jaamu yàlla nañu toppe yàlla ak ak di yeesala suñu ñu wax nañu gëm yàlla nañu jaamu yàlla nañu julli di ñu ñaanal teg seen bi ñu ngi laa ñaanal ci yàlla ak yont ba li ngay doxal yal na àgg ak jàmm te yal nañ ko fekke seen bi li ngay doxal yal nañ ko fekkee jàmm nga ñun xam nañ ne di ko fekke ne li tax nga jóg xam nga njëlbeen bi xam nga mujj gi waaye yaa ngi nokki jàpp sa njàmbur ñun xam nañu ko waaye xam nañ ne li ngay li doxal mu si kanam te dina ñëw bu soobee yàlla te xam nañ ne am nañ koolu am nañ yaakaar ci yow ne li ngay doxal ak li ngay wax di dina am yaakaar nañ ko te xam nañ ko doxula caaxaan waxula caaxaan yàlla yont ba alxuraan ak jàpp leen julli jaamu yàlla jàng alxuraan lii nga ñuy digal boole koog gi ñu ñaanal boole koog gi ñu digal tey bi ñun day wax xamuñu daal ñu ne waxal lu dul di di la di la ñaanal yal na sa mission àgg mission bi yal na àgg sa dalaay du xayraat yal na sax mi diina sax yal na dalaay du xayraat saxe noonu mboolem taalibe dalaay du xayraat yi ànd ak yow yal na yàlla ay yomtu baax may leen àjjana bi rabbiti te jéggal leen seen bàkkaar ak seen ñaawteef yal nañu ànd ak yow ba ca mujj ga yaa rabbi حبيبي حبيبي

Thank you.